xaw a tàng tuuti xam naa su ma continué da dana tar tarxis tuuti euh, maa ngi ñaan fii yéen a fi yàlla def jàmm ak salaam. maa ngi nuyu ñëpp ñu fi teew di daal di beral sama nuyoo commencé sama nuyoo si honorable député di nuyu représentant Issa représentant conseil départemental di nuyu maire Diosone ak xaritu maire bi fi teew di conseil chef de village yi di nuyu xalifa bi. Serigne Ababacar di nuyu famille Max Serigne Maxtaar Touré bi yëpp ak képp koo xam ne kilifa diine la bu teen fii Serigne Mansour bi yëpp maa ngi leen nuyu deen si di nuyu le professeur Ka ci wax yu rafet yu ñu wax ak kaddu gu am solo bi muy jox euh, moom balam damay commencé fi mu wax wax na fi affaire ñu intégré Ndiaye Ndiaye ci programme de de modernisation des cités religieuses loolu lu nu ànd la ndax lu lu lu dëkk bi mérito la boo xoolee histoire am ak mi mu sosoo donc loolu lépp li nga xam ne nii wa waxtaane woon nañ ko sax ci yeneen beneen place mais mi ngi suñu xel te dañ ko fàttali kilifa yi ba loolu parce que lu dëkk bi mérito la kon lu war a nekk la ginnaaw bi mu ne donc kilifa yëpp yi fi teew man damaa mbégte ñu ñëw fekkee li ñuy def fii tey sama mbégte nag li ko laal bari na mooy bu njëkk bi mooy dama sant yàlla bi ma fi ñëwee daaw ñëw ñëw fi daaw jéeg ñëw fi daaw ñëw fi bi ñaan yàlla ñëw fi at yu bari ñun ñëpp ñu tase fi donc loolu mooy mbégte bi njëkk beneen bi mooy damay euh, dox tànku mbokk ndax ñoo bokk arrondissement kon yéen yéen sama mbokk yi ma gën a jege te jànguma noonu waaye xam ne mbokk am na lu ci lislaam wax ci fonk ko beneen bi mooy tànku nag ndaw di ndaw di sama kilifa yi nga xam ne yow ma yónni fii pour ma ñëw teewal leen fii monsieur le préfet du département góor gi Mbaye bu yéene woon na teew waaye dafa am xat-xat mu ne ma nag boo naa la yónni nga dem ndax foofu sax sa kër la euh, yóbbul ma message président de la président de la république bi ko yàlla son excellence monsieur Macky Sall bi ko yàlla andee ci nguur gi ba léegi ñun ñëpp seet nañ ni dafa delloo l'islam diine laay la wax sax au sens large cëram place am dafa delloo place ci kaw gis nañu li nga xam ne moom lay liggéey ci kër diine yëpp loolu nag li ko waral mooy xam na ne yéen seen taxawaay bu mu ñëwee fu mel ni fii Njaay Njaay nga xam ne mooy famille yu Serigne Makhtar Touré li ñu fi fekk mooy jàng alxuraan jàngale xam-xam yar nit ñi teg leen ci yoon bu baax ak liggéey te loolu bu ci ñëpp tënkoo mais nguur gi liggéeyam day yomb ndax bu ñëpp defoon li nu wax ci lislaam yaakaar naa ne sàcc du am ren yi du am. leneen lu ñaaw du am kon jàmm mooy am tey jàmm su amee nguur gi day noppal kon loolu ñu leen di sant di leen gërëm ci loolu xam ne ne fii jàng alxuraan jàngale xam-xam liggéey loolu cosaan la mu ne mu tax nag mu taal leen loxo ni ngeen dolli ñaan waxoon ngeen ñaan la ko xam ne yéen a ngi koy ñaan mais ngeen dolli ñaan ndax xam ne ci loolu ngeen nekk loolu ñaan ba nga xam ne jàmm dina am ci réew mi ndax jàmm. mooy base bu lépp bu jàmm amul dara mënul am xam na ne am na yaakaar ci yéen xam na yéen a ngi ñaan dafa bëgg ngeen yokki ñaan yokku ñaan ndax Sénégal yu bari mucc na ci comme ni ko honorable député waxee boo gisee lu mel ni ay gàmbeeg yooyu yëpp yàlla sax ndox mu sedd yaakaar bi ñu am ci kilifa yi ne ci réew mi la ndax xam na ne toujours li ngi taxaw réew mi di ko ñaanal ndax jàmm am moo tax président dara leen loxo ne mi ngi leen di ñaan ngeen dolli ko ñaan ba xam ne yéene bu mu am ci Sénégal jaarale ko ci plan boobu tudd plan Sénégal émergent yàlla may ko kattan ak xel ak doole bu mu ko àggalee ndax yëpp comme ni ko Issa waxee boobu moom mooy yor kabaatu mooy capitaine bi réussite mooy suñu réussite wante bu buñ ko galgalee bu daanoo ñun ñëppay daanu kon nag ñun ñëpp ñoo am intérêt jàppale ko pour mu yóbbu Sénégal fu mu koy yéene te ba mu ñëwee ba léegi am na yu bari yoo xam ne ah, ku gëstu di nga ko di concret la kenn mënu ko weddi man nag du ma def ko monsieur honorable député dem ba ci biir biir mais xam naa ne ku xool la di nga gis ne am na lu nga xam ne ci réew mi ñu koy liggéey ci dëkk boo dem di ko faram te loolu kenn mënu ko weddi kon nag ñun ñëpp dañu war a taxaw jàppale ko ba nga xam ne li mu yéene fi mu bëgg a yóbbu Sénégal moom fa yóbbu Sénégal ndax loolu mooy suñu njariñ ñun ñëpp ñun ñëpp li mooy Sénégal ñun dañu war a booloo ndax mbooloo moom mooy doole man leer na ma ni suñu booloo ñun ñëpp suñu doole lépp luñ bëgg a def dinañ ko yëkkati wante buñ demee tasaaroo nii aw fii aw nii loolu dañuy xaw a perte suñu temps rek mais du tax véritablement li nga xam ne moo ñu tax a jóg mooy mooy développé Sénégal ko def loolu suñu ko bëggee def mu yokk foog ñu ko ci ginnaaw jël intérêt askan ko ci kanam parce que xam ne askan bi rek moom moo ñu ñor en tout cas man ci gàttal loolu laa doon wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi teew di ñaan yàlla sëñ bi yàlla bàyyi ko suñu kanam bàyyi ñu fi ba at yu bari ñu taxaw di def lu mel nii ndax li nga xam ne nii jiw tubluwuñ la dara du dul jëmmal lislaam nga xam ne mooy suñu religion nekk religion de paix nekk religion bu nga xam ne buñ ci dëkkoon ñun ñëpp lu bari bari yàq yu bari dina dem maa ngi leen sant di leen gërëm merci beaucoup. kenn ku nekk ci turam ak santam di leen nuyu ci turu xalifa bi. ci ñi nga xam ne teew su nañ fii nga xam ne ndaw la yoo xam ne ñu ngi jógee ci gouvernement bi teewal si fii président de la république ñu ngi nuyu ki nga xam ne muy jiitu ci ñooñu muy préfet bi di nuyu ki nga xam ne mooy président conseil départemental bi di nuyu suñu député bi nga xam ne moom itam fa tabaarakallaahu bokk nañu moom ab xalaat di nuyu ki nga xam ne moo nekk sunu maire waaye ñu ngi nuyu ñi nga xam ne ñoo bàyyee ko njeejeen ñëw fi di maire bu njeejeen ak absent ba di nuyu it ñi nga xam ne ñoo bàyyee ko njaafat ñuy wax ne waa njaafat seen kàddu baa ngi ñëw waaye li tax mooy ne fii waa fu ñu ne te kilifa ak fu ñu ngi wax na te dafa ñaan ne dafa bëgg a yeewee ko waaye yéen siyaare bi yéen a ko moom ndax siyaare bi xalifa baa nga dëkk njaafat kon seen siyaare la yéen bu ñu fiy fanaan fi ngeen di fanaan bu ñu fiy yendu fi ngeen di yendu yéen seen yéen seen siyaare la yéen ko moom ñu ngi santiir ki nga xam ne mooy meeru Jooso nga xam ne moo mel ne ci dëkkam ci lañu nekk di ko sant bu baax suñu mbokk mi nga xam ne moo di alaaj Caam wax na ne maire bi ku dimbale dëkk bi la wax na dëgg anam yu bari yoo xam ne dimbali na ci dëkk bi yoo xam ne am na ci yuñ mën a wax am na si yox yoo xam ne kenn du ko wax da ngay xam ne rek loolu ndimbal la nga xam ne dimbali na la ci loolu ci façon yooyu kenn ku nekk boo xoolee am na kum dimbale koo xam ne ba mu ko dimbalee dimbaleem rek mel na ni dimbale na téeméeri nit wala junnee nit ci dëkk bi wala dëkk bi yëpp dimbali na leen te loolu mu ngi ci te xam nañu <clears throat> kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci defin bi nga xam ne mu ngi koy defal dëkk bii waaye dañu yaakaar ne ngi koy defal commune bi yëpp ndax bi mu waxee njëriñu dëkk bi wax na njariñu beneen dëkk boo xam ne ñëpp a koy bokk maanaam li muy joxe li nga xam ne mooy njëriñ yi <clears throat> du kenn nit ki moo ko moom <clears throat> ndox mu ñuy naan moom kenn nit ki moom ko kooku dimbale nit ñi la ba ñu jëriñu kon yëkkati xaalisam di ko joxe xañ na loolu du njëriñam waaye nag fexe ba nii ñëpp mën a am njëriñ kooku moom mu ngi ci ñu ngi ko ci sant bu baax di ko ci gërëm jamono bu ñu defee lu mel nii ñëw na fi teew si def ci ndimbalan def ci yëppam ñun de otoom la ñu doon doxee ci lépp loo xam ne euh, ñu ngi koy dox ci lii dañ koy téléphoné rek mu ne ma ñëw wala ngeen di ñëw ñu dem fekk ko fa wala mu ñëw fekk ñu fii ñu ànd dem la ñuy wax yëpp ñu wax ko la ñuy def yëpp ñu def ko mu dellu si at ñu fii otoom dox nañ ci lu bare bare bare te yëpp yooyu maag Cheikh Tidiane mi ñoo ko àndandi ko do ak ñeen ak ñeen waaye jamono boo xamee ne waa kër Cheikh seen oto ñëwut fii moom la ñuy jël oto ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ne taxawaay bii taxaw na ci taxaw bu rëy a rëy rëy ndax fexe na ba nga xam ne dem nañ ci préfet bi def fa CDD boo xam ne loxo ma ngi ci moo ko def moo ko wax ba nga xam ne d'accord nañ ci te ba ñuy demee itam moo ñu yóbbu ba ñu àgg ba foofu mu fekkee ko toog li ñuy wax yëpp ñu wax ko ci kanamam lim cay tontu yëpp mu tontu ko ca lam ci euh, def yëpp mu def ko ci kon sant nañ ko bu baax gërëm ko waaye ñu ngi ñu ngi sant ki nga xam ne mooy préfet ba. préfet ba nga xam ne keroog bañ fa demee daf ñu dalal képp koo xam ne bokk na ci ñi nga xam ne am nañ soxla ci moom mu woo leen te ñëpp ko wuyu si ñëpp ñu wax li nga xam ne moom lañu bëgg te lépp loo xam ne mën nañ ko ca def nañ ko ci. ñuy ca teg ki nga xam ne mooy sous-préfet bi ba ñuy dem ci moom la ñu jaar ba ñu ko ci ci moom la jaar gannaaw gi delluwaat nañ ci moom waaye ba nga xamee ne ñu ngay def sedd boobu ñëw na ca teew si fa. lépp loo xam ne wax nañ ko mu war a jaar ci moom jaarale na ko ci place bi nga ko war a jaar ba mu àgg fa mu war a àgg kon dinañ ko sant bu baax di ko gërëm mu teew si fi tey ñu santaat ko ci teew boobu nga xam ne moom la teew ba tey xalifa baa ngi koy sant ci loolu di ko sëriñ baa ngi koy ji gërëm bu baax a baax di wax ne sant gi nga xam ne moom la xalifa bi am ci ñooñu mu ngi leen di ñaanal yàlla li nga xam ne bëgg nañ ko yàlla defal leen ko ndax fa kenn ku nekk li la bi santoon def nga ko li ñu waxoon ne moom lañ ci man yëpp def nañ ko te li nga xam ne itam moom lañ yéene xañ na seen yéene yëpp ñëwul waaye ñoom lépp loo xam ne bëgg nañ ko yéene nañu ko defal te it nangu nañ ko def lépp luñ man def nañ ko ci ba jotaay bi tey jii réussir gi nga xam ne réussir na ko gis na ko ñoom ñëpp tax eh, ñëw nañ teew si kon ñu ngi sant bu baax di gërëm ñooñu waaye ñu ngi sant ki nga xam ne itam mooy président conseil départemental bi ba ñuy def ndaje booba yebal na yebal na ndawam muy isaaba moom moom la yebaloon mu ñëw teew fa isaaba ñëw na fi barki démb indi ñu fi ndimbal loo xam ne euh, Moustapha Mbaye moo ko jox waaye ñoom lii seen habitude mooy ne suñu suñu amee dara di ko dimbalee nit duñu wax ne dinañ ko dimbalee nàngam dañ la ko indi rek duñu wax ne doo waxee itam dimbalee na ma nàngam waaye daal dimbalee ñu dimbalee lu rëy ñoom loolu mooy sa habitude kon kon kontaan nañ ci euh, ndimbal loolu jot nañ ko kontaan nañ ci xalifa baa ngi sant bu baax di ca gërëm waaye ñu ngi ñu ngi gërëm ñi itam ki nga xam ne mooy meeru Ndiafat meeru Ndiafat sëriñ baa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax ndax dafa wax ne meeru Ndiafat dooleem def na ko ci xalaatam def na ko ci waxam def na ko ci ba yëkkati ne benn kaar boo xam ne moo jëlee nit ñi parce que indi leen fii ci dëkk loolu meeru Ndiafat moo ko defal sëriñ bi. kon ñu ngi sant maire bi en euh, ebal na délégation délégation baa ngeen teew moom laay wax ne ñoom yéen la ñuy mujjee ndax lu tax ñuy mujjee yéen yéen a moom siyaare bi ndax xalifa bi mu nga dëkk ci seen ci seen euh, commune bi. sant na ko bu baax a baax a baax ñoom maire bu njaafat boobu waaye ñu ngi sant it maire bi nga xam ne moo jógee Ndiédiène ànd ak ab soyam dañ ko bind lettre yónnee ko ko mu dee ko jërëjëf ñëw ñëw ci sëriñ bi teewal teewal teewal fi njaafat ci kanam sëriñ bi te indi na ndimbalam itam boole ko boole ko teewam googu mu teew yëpp boole na ko ndimbalam kon sëriñ baa ngi gërëm meeru Njaafat waaye mu ngi gërëm meeru Njeejeen ak absent ba nga xam ne moom la àndal kon maire yooyu yëpp kenn ku nekk sëriñ bi gis na la gis na sa defin gis na sa waxin gis na la nga ca def mu ngi cay sant mu ngi ciy gërëm mu ngi lay ñaanal yàlla kenn ku nekk mu ngi lay ñaanal yàlla la nga xam ne moom nga bëgg ci sa ki ci sa commune yal yàlla defal la ko ki sant jàllu te dëkk njeejeen dafa waxoon ne moom lii ndamam ak lii bëgg-bëggam mooy bu fi jógee bu mu rus ñu ne lii ak moo ko fi def ñu ngi koy ñaan yal yàlla may ko loolu waaye képp koo xam ne dafa amee benn maire wala mu am dafa am maire dafa nekk maire boo xam ne mu nga yore mu nga yore commune bu mel noonu ñu ngi koy ñaanal loolu yàlla def ko yàlla jox ko sëñ baa ngi koy ñaanal yàlla jox ko mu am ndam ca maire ba nga xam ne yor na ci ba lépp lu mu ci bëgg a def ci waaye ku yor départemental itam ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal ba départemental bi lépp lu mu ci bëgg a def ci waaye député à l'Assemblée nationale ñu ngi koy ñaanal lépp lu mu bëgg ci député itam yàlla jox ko ñu ngi ñaanal sëriñ sëriñ bi ñaanal na ñaanal na euh, député yi ñaanal na ñëpp waaye itam ñi nga xam ne teew si nañ fi ñëpp kenn ku nekk kenn ku nekk ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci ki nga xam ne dafa waroon a ñëw te mënta ñëw ak ki nga xam ne ñëw na ba pare kenn ku nekk sëriñ baa ngi sant bu baax di la gërëm bu baax a baax eh, mën nañu wax ne képp koo xam ne woo ñu la ñëw nga waaye ñi woow dit ñëw nañu waaye amul kenn koo xam ne ci kaw suuf mën nga wax ne woow ñu la ndax woo nañ jullit yépp te ñëpp ay jullit lañu te kenn ku nekk nga ñëw nga ngir dara ngir yàlla ak yonent te moo la ñëw yàlla mi nga xam ne moo leen fii nii yal na yàlla fayal leen fayal leen yal yàlla fay yaara bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa waroon naa mën a gudd <coughs> waroon naa mën a gudd waaye ñu wàññi ñu wàññi ko rek waaye ñun amoon nañ am am nañ ci suba ay gan yoo xam ne ñoo fi ñoo fi ñoo fi nekkoon di di sapeur pompier ñu yebal leen fi ñëw nañ fi def fi lépp liggéey bu mucc ayib. fa ñu taxawoon mu tàng lool nit war fa mën a def lu nekk taxaw nañ ci kanam nit ñi booba ku fa mën yàlla def na kenn dara amu fa waaye bu fa dara amoon dara du fa xew ndax taxaw taxawoon nañu seen kii ñu ngi sa ñu ngi gërëm it autorité bi nga xam ne moom lañ fi yebal autorité bi def nañ lépp loo xam ne mën nañ mën nañ ko def nañ ko ba yàlla def na dara amu fi xëy na sax fii dara yomb fi waaye daal taxaw nañ daal ba nga xam ne dara amu fi waa Alfayda ñu ngi leen di gërëm waaye 2 bi gërëm nañ leen lu tax mooy de si bi fexe nañ ba mu ba ba ñëw teew si fii defar ñu li nga xam ne moom moom la ñu bëgg waaye Alfayda teew si nañ fi ba defar ñu li nga xam ne bëgg ñoom lañu ñu bëgg kon ñu ngi sant ñëpp euh, di gërëm ñëpp waa RTS teew si nañ fi waaye RTS moom moom moom sëriñ bee ko moom ndax daam Ndiaye moom RTS daam Ndiaye sëriñ bee ko moom. <laughs> waaw Dame Ndiaye moom moo moom RTS RTS sëriñ bi moom moom RTS daanaka moom santu ci kenn gërëmu ci kenn waaye Dame Ndiaye daal moom moom Dame Ndiaye sëriñ bi la Dame Ndiaye am Ndiaye la moom daanaka duñ ko sant duñ ko dara moom daal moom moom Ndiaye Ndiaye moomoon sëriñ bi ba ñu soxlaa dafa wax ne maa leen di fekk si ngeen ñëw ba agsi bu leen dem fenn maay daw maay lakk sama essence maay def suma lépp bu leen paas bu leen def dara waaye la ko ci métti sax mu ne dañ fa waroon di añee di fa am tiyaa mu am ca tiyaa boobu waaye añee wuñ fa waaye kere nag ñoo ko nax ndax alaaji mbay ko jox añ waaye lu mën a am daal moom lépp lu luñ bëgg mu defal ñu nuñ ko bëggee noonu la koy defee kera ba nga xamee ne def nañ ko loolu kenn ku nekk dégg na ko ay yoon ay yoon ay yoon ba kenn laajtewu ko kenn ku nekk dégg na loolu kon ñu ngi sant bu baax di gërëm képp koo xam ne ñëw na fi ngir lii sëriñ baa ngi lay bu baax di la gërëm di di wax ne lépp lu ci waaye def gis na ko dégg na ko xam na ko nangu na ko dell ko ñaanal incha allah mu ngi ñaanal yàlla ñëpp mm, yann yàlla def ci yéen dégg ak topp waaye yann yàlla def ci ñun itam ñu ak topp waaye yann yàlla def ci ñun barke yann yàlla jàppale suñu biir ak saayir ak baatin lépp loo xam ne ñëw nañ fekk sa fi muy loo xam ne soxla la bu ñu fi indi yann yàlla fajal ñu ko yàlla rek moo mën a faj yann yàlla fajal ñu ko yaram alquran jàng nañ ko fi barke alquran yann wàlla ci mbooloo mi nga xam ne ñëw nañ ak mbooloo mi nga xam ne ñëwuñ barkeb alxuraan yal na wàcc suñ koo yaara bi bi jaay rasul waaye ñu ngi ñaanal suñu préfet bi ñu ngi ko ñaanal bu baax a baax te li mu wax ne nañ ko ñaan mu ñaanal ab ñu ñaanal ki euh, euh, Macky Sall incha allah dëkk bii de ñu ngi ñaanal Macky Sall xalifa baa ngi joxee ndigal mu ne kenn ku nekk war ngaa wati na nga dem bindu ji ku amu doon carte bi demal bindu ji xalifa baa ngi jox loolu mu ne ku amul carte demal bindu ji waxul nga wate kenn de waaye mu ne ku amul carte na nga dem bindu ji mu ne na ñëpp bindu ku amul carte na nga waxul na nga wax leen kenn waaye mu ne képp ku amul carte na nga dem bindu ci bi kalimatillahi tammaati misri ma xalaqa wala xawla wala xawta illa billahi alhalil asim subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim alfatihi lima uliqa wal xaatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqa qadrihi wal miqdar asim la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asalaamualeykum yaa Cheikh Seydi El Hadj Moustapha maa ngi lay siyaar di siyaare Cheikh Ahmed Tidiane Serif di siyaare mboolem faylu bi ak jotaay bi di leen ndokkeel di ñaan yàlla place bi yàlla ko yàlla barkeel suma kàddu du gudd dama kontaan ndax dama foogoon ne tardé naa te tardé wu ma dama woote ñu ne ma day mu tas ma ne bu ma ñëwee fekk fi ñi nga xam ne ñoo fi ne kon tasakut danaa siyaare kilifa yi dëpp ñi bi moo tax ma guddee dañ xitt yu waaye Njaañ Njaay lim ñu jaral ñun xam nañ ko yàlla xam na ko Rasulullah xam na ko ku leen bëgg lañ ñu ngeen bëgguñu du ngeen wuutee sama daje mukk du ngeen kàddee sàmb du siyaare sama baay Njaay kon dama leen di sant di leen gërëm di ñaan mboolem ku tewee jotaay bi ku ñu fekk ku ñu fekk sa yaram yal na xaraam safara yàlla jéggal la suturaal la sàmm la doon la ak yokk ak tiraanga te barkeb Cheikh ma Tidiane Sërif dara jàmm Moustapha barkeb seeni sëriñ suñu sëriñ di nuyu mboolem gouvernement bi yëpp. nga xam ne fekk naa leen fi nga xam ne tey kenn ku ne jël na parole su ma ko bëgg a lim mën naa juum comme ni ma ko waxee boo déggul français ni nga man a tëggee rek gouvernement mooy tëgg naa mboolem koo xam ne fekk naa la rek nga yor sa palte maa ngi ñaan yàlla garaat boobu yal ci yàlla barke nga muudoo ko te jëriñoo ko. di bëgg rek ci yoonu islam bi nga xam ne ñun ñu ngi koy xootee da ko defee dajee nii ñëpp da ci dajee gouvernement bi nga xam ne ñoo nekk suñu biir nekk kër fay aada dañu bëggal ni ngeen defee tey man dama kontaan. billaahi su fekkoon ne du bëgg naa tagg ak nuyu suma sëriñ yi toog du jël parole aw ma jotam ndax dama siyaare si dama tiitoon foog ne tardé naa dama tiitoon dama xamoon kers ndax man du dem fenn fa ma xamul yaakaar ndax fa ma béy ko mbooloo maa ngi fa xat lool sonn lool waaye bëgg dëkk bi lool bëgg waa dëkk bi lool gëm seen woote bi yaakaar ki fi nekk kan moo yaakaar loo ki fi nekk mooy suma wasila suma seexu mara suma amiril muminin Cheikh Seydi El Hadj Mouhamadul Fadil Touré lu ma gëm ci dëkk bi rek moom moo ko xamal ndax man xaw ma maam Muxtar Njaay moom moo ne ma sama baay nee na ma ne ah, ne ma Serigne Muxtar Njaay wëllu yàlla la kum gërëm danga baax ndax moo gërëm Saloum Diané sëñ Fallou moo ma ko wax. ma ne mooy gër mooy sëriñam ba bi mu ko dalee Saloum Diané daf ko ne sëriñ bi danga nga xam ne maa la gën sëriñ mu wax loolu Serigne Muxtar Njaay si Moussa Ndiaye nee ne ko ndax yow man nga maa gën sëriñ mu ne ko danga ci xam dara su ma dëkk bi mooy gën a xumb sa dëkk bi ay xati xat ndax sa tànk bi fa nga fa moon sa gannaaw gi wéet ko ci sëriñ waaye sa joggare ji kenn xattanu ko te yaay suma sëriñ ba tax na la sa sëriñ mën a am nga ñaanal ko lam la mën a ñaanal nga am ko man suma ko ñaanee dama ko romb ba tax na nit dana topp ko ma ëpp may koo xam ne sa maqaama sa jubu wi ci wàllu yàlla fa ma laal ca asamaan sëriñ bi xagut fa waaye nag yaa ko sukkal yaa ko màggal yaa ko teddal yaa ko teral ba ñëpp xam kooku seen maam ak suñ baay suñ maam ñun ñëpp maam Muxtaar Njaanjaay yal nañu ko yàlla fayal Cheikh Amadou Fall Touré moom ma bàttali woon loolu sama dund ci dundam te dama ko bëgg a sàmm nag abadan daa iman bu ma ñëwoon fekk ma fi kenn man suma siyaare dana nangu ndaw xóolu ma yëkkati xóolu mbooloo yëkkatiwul ma ñu déglu ma yëkkati woon ma dama jóg ci yaqiin bu mat sëkk ak sama xol bi te xam naa it fa ma dégg sama tànk bi xam naa ko bu baax duuma ko ñu gindi duuma ko ñu xomat fu ma jëm xam naa ko kenn ma doon gindi muy Seex Alaaji jeex na kenn mënatu ma gindi fu ma jëm rek yàlla xamal na ma la fa nekk ak la fa nekkul waaye fii jaral na ma ma ñëw toog ba diggu guddi kii maa ko ne xaar ma ci cël wi fekk min wi su ma paree dem toog ci suuf sa julli fa ñaan fa ñibi suma xaja faj waxuma la ko Moussa Ndiaye Ndiaye juru ma juru sama baay du suma sëriñ bu doo doon wëli yàlla xamaluñ ma ko du ma waxee noonu suñ la xamalee lu baax nag nga bañ ne du lu baax kon xamal na géej gi xóot nag nga weddi ko géej gi dem ci géej noonu wëli yàlla mel kon ñu ngi sant suñ ma Muxtaar di ñaan yàlla njaboot gu fi bàyyi gu ndaw a gu mag yàlla bu dem perte àdduna yàlla bu dem perte àllaaxira waaye daal maa ngi leen a seeree na seen taaliba ngi nii duuma fi sëriñ de man ma tëj jotaay bi xattu na ma ko seen taalibe laa ganaar sax buñ ko doon sant mu sant Touré dootuma ko rendi ganaar laa wax buñ ko doon sant ñu ne tuure la sant dootuma ko rendi billaahi wallaahi taalaahi dootuma ko rendi dootuma ko lekk na ngeen xam ne seen taalibe moo ma ñëw daraja yëkkatiwun ma xam-xam andiwun ma juddu andiwun ma xam naa koo pare daraa ma yëkkatiwul lu màggal si leen teral sileen leen bëggal si leen ruum ci seen ron xoof ci seen ron ngeen ñaanal ma yàlla ma dem ñibbi lii moom yëkkati xut su ma fi len sàkk su fi xam-xam sax sàkk su ma fi xalal ngërëm laa fee xut ngërëm moo gën xam-xam képp ko xam ngërëm ak barke borom xam-xam dana la raamal képp ko xam ngërëm xam barke borom xam-xam dana la raamal waaw gannaaw xam nga ngërëm xam barke borom xam-xam dana la raamal ñett yàlla fa koy jaay alquran aljana waa xam-xam yàlla jaayul ko déedéet yaa koy sàkku ji fu ne fu la neex nga waaye albarka ñu topp la yaa koy sàkku alquran jàng ba si dënn bi doj aljana jaamu yàlla ba dee coobare yàlla nga dugg aljana yal nañu ko yàlla may ci barke Seydina Muhammad a salaam ah di nuyu ñëpp di leen xamal ne Macky Sall moom dalal ngeen xelam li taxoon ma ne seen yéen de jaral ngeen ma jël kàddu mooy ni ngeen defee tey di kalante di waxtaan di tooñante te tooñante fu leen dalal ngeen xelam nit ñi ñëpp ku fi bàyyee koo doxal ak politique ba doyoon ci bopp moo ko tey waa xam ne ne yéen yéen bokk mbo yéen a bokk mbuus yéen ah? waaw yéen bokk mbuus ku fi ñàkk fuloon nag ba dem takk ay jaaj yi pour ay xeet naan diw daf may fonto bañ tës sa bopp bi xam ngeen ne kii moom ak kii ak kee benn waaw loolu moom ngeen xam ko bu baax a baax a baax a baax ndax man ni ma gisee moom kenn jaraloon ma ci yéen xeet ak xeex waaw ndax waa ji dégg naa ni mu waxee. <laughs> <laughs> du ma tudd mu ngi nii li mu wax yëpp dégg naa ko waaw ñu juboo ngeen ñu nte ngeen waa dalal ngeen xelam réew mi yëpp nag man de suma xel mi dal na te ku baaxit xelam dal na ku kontaanul ci seen wax ji rek rambaaj la seytaane la na ngeen ko mucc na ngeen ko moytu bu baax a baax a baax waaye seen wax ji rafet na bu ngeen demee ngeen ne ñu président de la république ne ko mu ngay def bu baax waaye na yokk loxoom rek ñun daal nu mu gën a yokkee loxoom ñu gën a jël ci ñett nag jiw xaalis yoon ak yoon jiw ak xaalis ak yoon lu mu si dimbali ñu jël ndimbalal xaalis cosaare ci réew mi jiw ñu bay yoon ñu dem fi nga wax jëndi mburu ak café ak yàpp andi ko ndekkee ko fii loolu bëgg nañ ko <laughs> dégg naa li wax bu baax te xam naa ko bu baax wax président Macky Sall ne ko sa xarit Serigne Mansour Ndiaye nee na na nga fexe yoon waa këram ndax mu jënd mën a jënd mburu Kaolack <laughs> ndax ñax mi sonal na ma yoon sonal na ma fa tabarakallaaw ñu koy sant yàlla bu baax a baax a baax yéen yàlla defal jàmm di nuyu suma sëriñ bi nag may fa ngeen ma mujjee man moom laa def mujjee mu sama baay alaaj Babacar Mbay ku baax la man naay xuuf ñeme na njaboot tabane ci xolam bi tabane ci xam-xamam bi tabane ci làmmañaw bi tabane ci lim jiite ndax tey bu fekkoon daraja rekk laay xut lu mën a di mën a di dana ñëw toog fii bantas waaye jël na darajaam jox leen jël xam-xamam jox leen jël kàddum jox leen yar na mbooleem kuy doomi soxna te jiite mbooloo belaaj mbay ture yar na ñëpp mën naa xam na jot déglu nañ ko bëgg nañ ko waaye joxe ne lépp teg ko ci loxoon njabootam ku fi bàyyeekoo tey njiit day soo demee na soppi defen xool ci Bayelaj Babacar Mbaye niru na maamam niru na baayam muy Bayelaj Bayelaj Bayelaj Makhtar Touré nit nag balaa nga koy balaa nga ko na niru na niru kalifaam lu def la mooy la niru kalifaam rek bàyyi ko xam ne fa nekk ci point ak pexe waaw point pexe pexe ba pexe ba nax nit ñi. def point bëri ci ni ñi loolu nag Belaye Mbaye newu ci moom ndax joxe na lépp Belaye Moustapha mii ku ko xam teg ko sa kanam teg si bay Cheikh Tidiane Chérif mii wax dëgg yàlla ak seen doom yi leen wër nii ku dikk te loolu doyul ko dara du ko doy man de doy ngeen ma fi yàlla ngeen fi yàgg te wér ci barkeel sama baay El Hadj Aliou Ndiaye barkeel sama maam Makhtar Moussa Ndiaye barkeel sama sëriñ si Alay Modou Fall Touré di nuyu ñëpp ki foog ma tudd ko muy sama xarit la xarit ñëpp la ku xattan ku ñeme bëgg nit ñi. ku am xam-xam te rafetal ko te jubale ko ci diine ji moom Macky Sall ñu niroo defin man pays diine yi dem naa place bu ma dem ñu ne lii président Macky Sall moo ko fi def lii président Macky Sall moo ko fi def ma ne ah ma ne daan naa xam mbaay bon daanu ko gis waaw kon daanu ma ko gis kan ba dama dox doon waaye foo ma dem ñu ne moo fi def lii fu ma dem ñu ne moo fi def lii ma taxaw jàngal ko salaatul faatihi billaahi wallaahi tallaahi taxaw naa jàkkaarloo xabru alaaji Abdoulaye Niass maam alaaji Abdoulaye Niass jàkkali jumaa yi ñeseen ji ñaanal Macky Sall Fatiha salaat Fatiha te suma Fatiha ji man suma salaad Fatiha ji man ku ma ko dóor jàmm ko yéene ci yow waaye ku ma ko ku dóor jàmm da nga ko yëg te dóor naa ko Fatiha salaat Fatiha te yàlla rek tax nag yàlla rek tax yàlla ko yàlla dimbali ci barke Rasulullah yi ndax bu ñoo xam jot moo tax bu ñoo xam jot yéen a tax de bu fi saa saa yàqut yéen a tax bu dee bi tasut yéen a tax buur ak sëriñ ni nga ko waxee xaan rek lañ mën a def. yal nañu yàlla xandale baax jana yàlla bu dëkk bi jiyoo gàmbe gi ngeen wax jàmm rek fa mënoon a xew ñëpp ñaan nañ du région bi yëpp du région bi rek du Sénégal rek mboolem ko am kurus te ragal yàlla ragal fitna ñaan nga boo doowul jullit si ñaan nga ndax fitna moom xamul jullit xamul xamul këfoor kon ñëpp ñaan nañ yàlla fi jàmm sax barke rasulullah di sant di gërëm di leen jottali nuyoo Cheikh Alay Mabdul Xayri nee na si mu tabaa ñëwoon na waaye boo demee gune yëpp yaa mag jottali ma su ma nuyoo asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu allahumma salli kon kontaan gii ñu wax man maa ci jiitu maa ci jiitu kontaan nañu lool te danañu wuti ndimbal fu ñu ko mën a amee wér nañu ne bu fekkoon am naa caabi aljana njaanjaay lañ koy ubbee képp ku ci dugg fii ngay dugg mbaa doo dugg bu ma amoon caabi àjjana bu ma ko yoroon fii la bunt bi nekk képp ku duggul fii ñëwul fii doo dugg kon amul lu ma gën a gënal lu ma gënal dëkk bi te bu soobee yàlla lu ma amati indi ko lu ma xamati indi ko fu ma ko mën a jëlee ak fu ma ko mën a amee sant naa ñi ci samay rakk lañ ñi war a liggéey samay mag yi war nañoo wàcc fi nu toll nii man de dinaa leen jàppale ci seen liggéey bëgg naa ànd gi ak rafetoo ak déggoo ak waxtaan bu kenn def dara dara lu ñëpp àndut bëgg ko xam naa sax duñ dana jafe ñëpp ànd waaye li baax moom ñëpp dañ ko bëggandoo lu am ñu ko bañ rek am na sikk wala am na intérêt kenn nañ sàmm loola buñ ko sàmmee mer na meroon naa meroon naa lool mere dëkk bi lu tax ma mere woon ko dama ne dëkk bu toll ni njaay njaay bu làmp tàkku tàkkul amatul Sénégal gisuma ko fenn man kon nag sàggan ak waa dëkk bi ci la waaye nañ soppee ko waat waaye te àndaat te bañal naxante te bañ warante mu uti njëriñ indi ko ci dëkk bii man de màggat naa ba dootuma tabax xëy na mbaa fasutuma yéene mu bari waaye bu ma doon tabax di étage fii laa koy tabax bu soobee yàlla waaw te loolu laay digal sama njaboot ñu ñëw ci dëkk bi dëkk fi ndax courant leen dese li ndakaaru am ngeen am ko te dangeen ko am bu soob yàlla man de kuy liggéey ci courant bi nee na ma bu ngeen amul courant du ma gor loolu la ma wax dama ne boo yow mii boo fi ñëwee tawat fi courant bu ngeen ko amul du gor ma ne ah, lu tax mu ne ma li ma sa yaay defal wala li ma li sa yaay defal li defal sa yaay defal sama yaay bu ma leen joxut bu dee maa yor courant bi bu ma leen ko joxut duma ma gor lii dégg naa ko kàddu gi dégg naa ko kon nag ñu ngi ci incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah. bañ leen nuyu. kon nag ñu ñu ngi leen a fay ci fay boo gën a rafet bi ngeen ñu nuyu man mbiram cant rek moo tax ma jël micro bi sant nañ ñëpp ak képp koo xam ne wax nga fi la nga wax sant nañ la ci ku fi jëfit la nga jëf sant nañ la ci may wax ne gouvernement bi it sant nañ ko li nga xam ne moo tax moo doole tax ma jël kàddu moo re Cheikh Omar dafa wax ne daanu fi wax waaye daan na fi jëf moom laa tuddee alaaji mbay ne duy wax waaye day fay jëf yaar yooyu nag moo fi nekk wax ak jëf alaaju mbay moom ci ñiy jëf la bokk man nag bu doo doon man ma ne ma ci ñooñ laa bokk micro maa ngi ngëb ci siyaare bi fii da ci wax euh, mille neuf cent soixante-dix-sept ba léegi ma euh, siyaare bi ci laa soog a ngëbee micro da ci wax xanaa bañ maay laaj xelimaan wi loolu de laajoon nañ ma ko fa ma ko ci siyaare wax ca waaye lu mooy loolu waxuma ko Cheikh Omar ma la doon wax ñi da ko sant moom man da sant boppam ndax lim mu def man maa ko xam mbooleem lu jumaa jii nii bañ ko bëggee jii nii ñi taxawal tey bañ ko bëggee moo ma njëkk a jox juróom-ñetti junni juróom-ñetti junni booba ba ma ko joxee baay daf ko denc ba mu yàgg ma demaat ci moom gis peerab nag buy jaay ca soto gële fa den ak jàkk jële ñu xam fa yees ma dikk na ko bàyyi juróom-ñett junni boobu ma joxoon dama gis peer buy jaay fële ma bëggoon ñuy jënd ko moom na ma ku ko joxe woon la ma joxe juróom-ñetti junni ba ma dikk jënd peer ba peer boobu bi ñu bëgg di jàkk ji maa ko jaay ci fanweeri junni ñu dugal ko ci ci jumaa ji bañ demee ba mu yàgg mu dellu ñëwaat na ma liggéey bi de dafa xaw yàgg dellu ma joxaat fukki junni ñaar ah danaa wax ni ku la sant la ngaa sant da nga koy wax nit ñi xam ko de moom mu foofu de danaa wax de ca wax de bu ma bu ma wax nag ngeen di ñoppati seen bopp ak sëgg ak waaye te danaa wax de waaw danaa wax de waaw yéen a ngi sëgg ka ñopp ci seen bopp waaye du ma lu tax ma noppi de danaa wax kaan yi de waaw ba ba mu ci jógee mu jox ma fukki junneeg ñaar ma dellu ko ci def Mansoor nag jog moom itam moom keroog bi ñu bili bili kii bi bi biñ ko terrasse biñ ko góoraas dafa dafa ñëw moog Cheikh Omar ñoom ñaar ñëpp la sax Cheikh Omar dafa ñëw eh, Mansour dafa ñëw na ma nañ yokk jumaa ji ndax dafa xaw a tuuti ma ne ko ah, lii ñun xamaguñ dara di tere ñu bàyyi ko nii mu ne ma foo bëgg mu xem rek ñu yokk ci moom ci ci ci kii eh, mansoor ñu yokk ci lu man ñaari mètre ci gannaaw Cheikh Omar dikkate moom itam ne nañ ko yokk moom ca kanam la yokke moom it yokk na ñaari mètre ak demi moo tax jumaa ji xem nii waa jumaa ji lu tuuti la woon ñoom ñooñu nga xam ne ñoo ko yokkulu nag ñoo ci doon def seen xalal Mansoor keroog biñ ne ñu ngi koy kii ah, Ablaay Oustaz la joxe ca Ndakaaru juróom fukki junni boo juróom fukki junni baax na de ndax maa ngi doon jëndee bërigo feer ñetti junni ak juróom benn tamit mu jox ma jurum fukki junni peer booba ma jënd ci jurum fukki junni booba moom lañ terrassé eh, terrasse bi Cheikh Omar na ko déedéet ma doom du la ko bàyyee camion yooyu nga xam ne moom la wax xamat trente tonnes moom la sartee xeer indi jóoral ñu ko ah, xeer yooyu moo bili jumaa ji bam ba mu àgg ci lulut genn nomba gali pare pare kër Mbay Faatu lu dul loolu ca benn saa su ba lañ ko bilee li ma ma gën ko gën a gàttal li ci mujj mujj waaye fokk dem dispensaire bi tuddoon nañ ko fokk ma wax ci dispensaire bi bañ ko bëggee waaye joosoon bëgg ñi dem euh, kii Sow ak Juuf ñoo yore woon wax ji ba ñu waxee dañu ne fi ne projet bi fukki eh, fukki million la ak juróom-benn yéen nag yéenaay def ñeenti million yi ñun ñu def la ci des. kanaa ko xam ne xolam bi wóolu li may wax bu ko wóolu nag moo ko yëg bu ko bekkoor dabee moo ko yëg lu ko mën a dal moo ko yëg waaye man li ma nangu. ngeen bëgg ngeen wax ma ko ma ñaan ko yàlla yéen ma ko sant man dikk ñaanal sama bopp ndànk laa dikkee woon yoo toog ci suuf sii. nga xam ne ci la maam Matar tëdd mu wóor ma ne wëllu yàlla billaahi wëllu yàlla ndax dama ne ko xaar ma jooson ba minuit bu ma xamee jot daa ñëw su ma fekkee ñëpp tëdd ma toog ci suuf si moo xaye te wëli wu xaye ak jongoñu bu xaye fokk mu soppi defit te maam Matar moo xaye waxoon naa ko bela Ibrahima Niass noonu naa ko si siyaare bi loolu fi ñaan mu nangu ñaanal ma yàlla sa maam moo xaye ak sa jigéen lu ñaaw ñaaw ñaw ñaw ñaw bu xayee soppi doxin maam mataan nag moo xayee suufam sii danaa fi ñaan yàlla yàlla dana ko nangu tiitaruwuma bàkkuwuma yéen a mën a ñaanal wax ngeen wax ma ne leen du ma ñaan ngeen ne ñaanal ngeen wax ngeen ne du ma ñaan boo ko defee doomi sàmm bu yàggee mu jël sa lisi ratt ko taman sama bàyyi ni nga xamuñ kon ci leneen lu jàng ak ñaan ngeen ne barke ak yokk ak làmp ak yoon da ko am jumaa ji jumaa ji matagul ah fa ngeen rëdd benn waaw deuxième mandat kan Macky Sall waaw ñi nga xam ne politicien lañ am na ku ma dégg mu ne moom ndax duma ko ñemee wax gannaaw am na koo xam ne la man danaa ñaan yàlla Macky Sall président de la République ci barkeeb yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal politique nag taxul maa jóg bi mu koy wax moom sama xol bi li ci nekkoon mooy li ngeen jàmbat président bi def ko li ngeen bëgg yàlla def ko baabakat Jàmme mu ne jox na leen juróomi tontu ci jumaa ji kon jumaa ji moom ñaan nga nanguwaale na moom baax na. da ngeen ci xam dara ak lan jumaa ji nga wax ak yoon ak lan ak làmp lijaaba ak ndox lijaaba yàlla moo ko may ko ko neex ji nga yàlla moo ko may ko ko neex dañ ko da ñaan ndax dana ko may bandi dana bëgg a sàcc ñaan ne na yal naa xam ni maa wut dem xam ko lijaaba moom du mbaax daa xam xamal loolu wilaaya du njub xam na koo xam ne saay-saay la su la ñaan si fa nga ko dafa fidd nga gaaw koy may mu dem ndeg man koo mbugal xam na ñoo xam ne loolu tax ñu am di jaaba waaye du seen mbaax du seen jub ndax xam nañ seen bopp waaye danaa ñaan yàlla na ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jikko yi ak jëmm yi ak xol yi ak xel yi yàlla tàggatal ko boppam téyel ñu ko moom nga xam ne lu ñu ko def di ko xool du ko bind bu mu faale suñu jëf ju ñaaw yal na leen ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ko def waaye chrétien ba dafay ñaan borom jalang ba dafay ñaan mbandkat ba dafay ñaan borom salali ba dafay ñaan te lépp yàlla fa koy nangu séexluwut bo du xañaanut ku baax la moom rëbb tabaraka wa taala li xam yëpp fa koy maye ku xam ñaan xam ismu yi xam yooni ismu yi xam bunt yi fee jaar boo ñaan yàlla dana nangu danaa leen ñaanal làmp maa ko wax ak jumaa ji mat jumaa ji moom dana mat ak ndox ndox yoon yoon yi ñu soppi ko mu ñuul waaw dana leen ñaan sax école français bu fekk xamu leen ko amul benn problème ak bu arab na fi yëpp ñëw rek ndax fi ngeen bëgg mel ne Dakar te Dakar lépp am fa ak xaalis bu bëree bëree bëree bëri waaw yal na leen ko yàlla may te barkeb El Hadj Fallou Touré maa ngi ñaan nag bay Moustapha ndé li ngeen ma ne El Hadj Fallou seen bàyyi la te mooy suma sëriñ taalibe nag lu ko sëriñ ta wax mu def ko France France. da ngeen bëgg beneen forage lay ñaan damay ñaan beneen forage te dana xam waaw loolu mooy xam. forage bi dañ ko tàmbali te pare bu fekkee bii fa tëral beneen moo da xam xam nga ñaan nu may def daay foqarti yow mi ko amee te koy def boo téye yàlla indi keneen mu def ko yàlla kenn rek la doon rampale mooy kii rey nit ñi. Ah? kii rey nit ñi du ko ràmpale mukk waaye ku ko mooy bilan bu mu lay jox boo yéexee mu jël keneen ba mu des nag malaakal mawti ba tax na buur lu la war boo ko defut keneen ñëw def ko dëkk li la war boo ko defut keneen ñëw def ko jabar li la wax boo ko defut keneen def ko doom noonu seen forage bi bu fekkee dafa noonu tag danaa wax yàlla mu indi beneen laa wax yéen ma ko sant yéen ma ko sant forage da ngeen ko am yoon da ngeen ko am ndox mu neex da ngeen ko am mooy forage da ngeen am hôpital bu baax a baax a baax a baax bu mag lu ci nekk mën naa leen a wax boobu mooy génnee billaahi wallaahi tallaahi xamul ci benn boo xam ne moom mën naa wax ne fii bii laa fii na bii fii laay ne amul gannaaw bi ngeen ma ko sandee ci ndigal laa wax malaaka buy naaw yàlla ko ne demal yéen a mën a demal taman sëñ Fall lu mën a demal ma def fa <laughs> ndax kooku rek laa gëm moo ma xamal yàlla xamal ma rasulullahi sallallahu alayhi wasallam te seen doom la ñi muy seen bàyyi ngeen talal ma ñaan kontaan naa bu baax kontaan kontaanu ma ndég kàddu gi dama kontaan ndég seen jikko yi waaw yal yàlla defal la sutura yàlla ba ñàkk xaalis mukk barke rasulullah barke Cheikh Tidiane Serif bu bëree nag ñaan gi fay yéex bu leen ma joxati ah li ma wax dëgg la di ah gis nga ji bi mu ne damay wéy Baye Niass ba mu yàgg mu ne nag ku ci joxe da nga am li da am la <laughs> loolu sax mu ngi nii toog. may su ngeen joxee dafaa yàgg de ndax mu nekk wéy na ko baraam ne ko yaadee lii yaay laa yaay laa te Baye Niass romb na loolu Baye la Cheikh Alaaji man da wax Cheikh Alaaji euh, euh, Seydina euh, la wax la man da wax Cheikh naa Cheikh yi ah wa ahmadu samsun wa suyuxun kawaakibu sa jën jëlul ama amaajida ahmad gis nga Cheikh Alaaji Ibrahima Niass man sama baay la sama maam la bay naa mu tiim ma tëb na sama bopp bi sama garaaw gi bokk na ci man bay naa mu tiim ma tëb li ma te ngeen ko ndaw de muñ rek ñu séddale laax yi ndab leen mu tëb li ma lekk ci kon kooku xam naa ko loo wax ci moom romb na ko boo waxoon na mooy suuf si moomu suuf si boo ne mooy jant bi mooy jant bi boo ne mooy biddiw mooy biddiw romb na xawsu romb na sëmsu romb na nujoom romb na lépp lam do yàlla ko xam ndax lim def ko ko def xamatoo benn tudd kenn mëntu laa tudd ku ko tudd dee subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar allahumma ya rabbi xam na ñaan koo xam nag du ma ko ñaan ci kaw moom far force dafay nangu billahi dana nangu da ngeen root ci forage bi da ngeen dem ci kaw yoon wi tamaa ngi ñaan mu fekk leen fi waaye seen monstre mas na ko fee ñaan moom moo la xam far force dëkk bi yàgg na lool ñu ngi nattale ay dëkk lamp yi dañ takk yal na ngeen am fay courant yoon wi dara xam yal na ngeen ak paas nag waaye loolu dara xam yi dana tàkk nag waaye nag danaa ñaan ngeen xam lu ngeen fayee courant balaa leen a coupé wala lamp yi leer rek bokk leen ci comme lamp yi stade ay lamp yi kam xay doo ko wàccee di boo boo gisee leer rek poto lamp bi ci nga jaar. man alaaj Fallou dama ko doon ñaanal ma xaalis piir waaw piir pire laa ko ma ñaanal ay junne ki ay yii déedéet ku xam junne junne jamono la yooyu caaxaan la ma ne ko xaalis laa bëgg waaw mu ne ma ah gudd fan baax na ma ne ko man xaalis la bëgg mu ne ma njub baax na ma ne ko xaalis laa bëgg mu ne ma ah ragal yàlla baax na ma ne ko ji nga xam man xaalis laa bëgg. <laughs> lu mu wax rek man xaalis laa bëgg ba a yàgg na nit la mu ne ma nga bëgg xaalis ma ne ko su ma amul xaalis du jub mën naa sàcc man naa tappale man naa lekk riba te su ma xamee xaalis dootuma jóodi dootuma sàcc dootuma lekk riba mu ne ma ak lan ma ne ko su ma amul xaalis du ma la mën a siyaar ndax su ma la ko sew si xamul yàpp xamul yàq sa di kese la mënuma léegi dala jox ñaanal ma ma am xaalis dala ko jox mu ne ma loo dëgg la ma ne ko sama amul xaalis du am dépasse man faa ñaaw su ma amoon xaay du am jabar du dëgg seet leen ko rek mboolem ku télé bi jël maa si gën a ñaaw barke sëñ Fallou Mbacké waa mu ne ma sëñ Mansour daal la ñaanal xaalis yow li nga wax dëgg la di ndeka xaalis mooy def lépp man ak sama xay duma ma dem màkk du ma xam kër gu baax su ma dépasse du neex te bëgg maa xaaraani su ma du rafet te ma maa fóotaani di ma xam war waaye te bëgg may dox ñaanal ma xaalis sëriñ fàllu xam nga lu ma laa ñaanal ma xaalis ma liggéeyal yàlla mu ñaanal ma xaalis ñii dama ko jox ñii nii ñoo ma koy jox may leen di ñaanal ak yéen ñii ba par benn benn dañ mën a jox xaalis léegi-léegi xam naa ba ngeen ko bëri loolu rek <laughs> waaye danaa ko ñaan man secret xaalis man naa koy ñaan man suma kurus gi duun mbaa mu ñëw dóori xet déedéet añee rek mu départ man duuma kuy fanaan si kurus non tur wu ne nga yëngal xulli ay bët ne yaa nga gis xaras te gisoo sax benn tànn bi sa nekk duuma kooku te ñu bari loolu lañ tax a jënd kurus rek xulli seen bëri ñu foog ne xaras la ñoo gis gisuñ dara. xam-xam ak njub bu leen kenn nax. xam yàlla ñëw ci xulli bët ci xool ba sa kanam nga gëmm ñëw ci xool ba sa kanam nga xool ci suuf de maanaam te sëri mu ne ma xool ci kaw xam yàlla borom foofu ca xol ba lay nekk yàlla mooy samfee ci xol ba bi diw rek la xol bi. rek la xol mi xol bi da da njort lu baax xel mi da jàpp lu baax bët bi mënu koo téye kenn ragalewul ko yàlla tànk ke mënu koo téye lamañ ke mënu koo téye bu ñuy si wax bi jàppuñu kon du ma ñaanee foofu maa ngi ñaan si yërmande yàlla ak ndimbalam yal na leen dal te su may départ fii ñaan ngi commencé taw te bar képp Seexu Tijaan bu ma neexoon mu taw tey waaw ni ngeen ko defee xam naa ko kon tàllal leen ma ñaan yal na ngeen ko yàgg jiite loolaa njëkk ñaan nga ne alxuraan waaw doon naa leen jox benn secret alam nasara làkk sadraka wala naa xank saraka allati anqad sarak wara fanaan làkk sikraka fa inna maal xonsri yusuran inna maal xonsri yusuran fa isa farata fan sab wa ilaa rabbika farqab baat bu nekk nga xisaab ko hmm? baat bu ne liif bi nga def benn lam nga def fanweer même nga def ñeent fukk bi ni koy xisaabee nag bi liif gi benn yoon nga ko bind laam gi fanweeri yoon nga koy bind miim gi ñeent fukki yoon nga koy bind xam nga li ma bu baax nun gi juróom ko bind par xaraf ngaa ko bind benn liif fanweeri laam ñeent juróom fukki nun moom ba sa baaga dañaar xam nga li ma wax bu baax ba sa ga baaga ñaari baalaay doon te doo ko te doo ko boole par xaraf nga ko xaajale nga ko xaajale soo paree nga wut lem fotoo ko ko ba mu daj waaw nga gattax ba si fanaanal ko si kaw xar ko képp ko si fanaanal ko si biti allah akbar balaay fajaraa jot malaayku yàlla yi dañ ko siyaar billaahi guni ko ko naan doo yàqu da nga jub da wax lu la jàngalul gu ne mag ceem ku juba di naanal nga set waaw alam nasara laka sadraka wa wada'na anka wizraka allazi anqada zaraka wa rafa'na laka zikraka fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab jël leen ko ci téléphone yi fu la neex ngeen yóbbu ko nga xisaab ko liif gi nga bind ko benn yoon laam nga nga bind ko fanweeri laam comme lamara miim nga nga bind ko ñeent fukki miim nuun nga nga bind ko ñaata juróom fukki yoon siin gi ñaata la junne la wala ñetti téeméer la voilà nga bind ko ñetti téeméer yoon <laughs> raa nga bind ko ñaar téeméer yoon xàlloon gi ñaata yoon nga bind voilà kon xam ngeen li wax fi nekk nii na këyit gi bari wala xalawa ji yaa rek na na na këyit gi na këyit gi gudd buy xalawa yi def ko ca képp gattax bi samp gattax bi nii képp ko ci takk ko buy kayit doo ko lem da nga xaru gattax bi ba mu gudd nga képp ko ci takk ca kaw samp ko nag muy def nii fekk def nga ci lem ba mu takk ko ci xam nga dafay diis du naaw nga samp comme comme bant bii waaw dégg ngeen li ma leen wax bu baax ba fajar jot buñ noddee salaatu ba nit ñi di julli buñ génnee balaa jënt bee fenk nga raxas nga raxas nga jàmb ko decc ko ba fajar ak xàllar ba bis neex na nga bind ko fajar ba nga naan ko sa gune yëpp sa gune yëpp mën nañ ko bokk ñeent fukki nit mën nañ ko bokk ak benn maa leen ko jox addiya ku bëgg jël ku bëggul nga baax sa dooñu dara waaw loolu addiya la ci man ci yéen ci sama sëriñ ngeen baal màq nag bisimilah rahmaani rahiim ku mënta bind nag mënoo fa bind lu xamoo nooy def xaalis rek nga bëgg ak nguur waaw ñooñu yéen xam naa li ma leen di ñaanal waaw yéen xaalis rek ngeen bëgg jéematu leen am mokk alxuraan xam na fa ñoo xam ne fa ñoo wax rek waa alxuraan moom bëgg ñu ko mokkal ndax duñ nafa duñ waxaaf te bu ñu julli inaata naak la ñu jàng ko xolo la waat <laughs> kooku jéematu la mokk alxuraan bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmani rahim ausbi kalimatillahi tammatin sima xalaqa wala hawla wala quwwata illa billahi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wala akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walal amin bismillahir rahmanir rahim allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi allazi yasma'u bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min illa ma sha'a wa yasma'u kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim wa radda Allahu allazina kafaru bi khayrin khayran akbana lahum mu'minina qital wa kana Allahu qawiyyan 'aziz ya rabbi ya allah ya basitu ya wududu ya dayyan ya salam ya mu'min ya muhaymin musawwir mutakbir qala qul ba'du musawwir lawla sunna subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah akbar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah akbar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar bismillahir rahmanir rahim alam nasra lak sadrak wala ansuraka lazi yanqura sak wa qana lak sadrak fa inna ma'al usri imman suran fa sa abrat kon sabira akbar qab bismillahir rahmanir rahim isa ja'a nasrullahi wal farbarat nasira quluna fi dinillah afadil fasabi bihamdil wakatu inna kana tawaba bismillahir rahmanir rahim qul wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad bismillahir rahmanir rahim qul wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad bismillahir rahmanir rahim qul wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu falaqi misri ma xalaqa misri xaasim sa lu ñu bëggoon rek ñooñu defoon nañ ko ñu sant waa rajo bi bu baax a baax a baax sant ñi nga xam ne ñoom lañ fi ebaloon lépp luñ bëggoon defal fa tabarakallah rafetlu nañu li ñu def lool kontaan nañu bu baax gërëm nañu ci baax ñu ngi sant ki nga xam ne mooy Modou Touré bi nga xam ne moo fexe ba jokkoo ñoom ba fexe ba indi leen waaye indi boobu mu leen indi yëpp suñu bëgg doon def lu baax itam duñu ko def waaye defal nañu lépp sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen bu baax wasalaamaaleykum